ci toppatoo île bi xam nga nit bu demee ba naan île de Saloum ci Sénégal la bokk ça veut que moom mooy toppatoo bi des na waaw ndax boo demee ba koy posé rek ba koy di ko rappeler rek toppatoo bi des na te tey lu ma 3000 personnes ñëw kan moo tax ñu ñëw cheikhul islam bàyyi nga xam na nii toogul fa mu toog rek ñëw fekk si ko dafa jot dugg ci géej gi dox ci jéeri gi dem fépp ba tey ñoom ñëpp woo leen ci islam ñu ñëw mu jaral leen ñuy fanaan dix heures de temps di ñëw indi seen addiya jox ko seen maahi Ibrahima Niass bi nga xam ne lii mooy xaadimul umma dem sama yaram dafa daw ndax dama doon ziyaare ba ñëw ma fekk ko mu toog ca mbedd ma toog ci basangam nga xam ne nii ku ko romboon sax da nga naan kii kan la dañ ma koo doog di wax ma wàcc doog ko nuyu loolu mooy koo xam ne nii day nituk yàlla la ndax yonente bi sax daanañ ko fekk noonu naan waaye yonente bi di dox ci marché beeg di def ne mali haza rasul yakul temps wa yamsi fil aswaq lii nag gouvernement bi góor góorgóorlu nañ ci waaye dañ leen di wax li fi xew fii ñun dañu amoon ay partenaires coréens ñu ànd dem lijjanti cinquante milliards ñu ñëw ñu war ko def ci port Kaolack ñu ne dañuy njëkke port Foundiougne barge yi ñu indi ko fii ne day draguer port bi yéen ñëpp fekk ngeen ko 2019 président Macky sàll ñëw ñu def fi pompe bu am solo mais xëy xëy ne ko fu xeet yóbbuwaat suñ ko yóbbu woon liggéeyee ko sax ñu mën a wax waaye ñu ngi ko yóbbu dem gaare ko lëfu ngi amul benn njariñ wallaay waxal ca kaw jël cinquante milliards investir ko ci alalu réew mi ba pare dem gaare ko fu njuñ amul njariñ wax naa ko kër premier ministre ci seen jubbanti gi jubbanti li ma leen di wax rek li gars yi randal jubbanti la waaye li ëpp solo li ñu war a jubbante mooy li fi nekk te dëng te ñu war ko soxla ñu war koo jubbanti mu dox suñ defee loolu ba pare dimbale ni ñuy financer transporteurs yi ci ay bus wala ay BRT yépp ñu defal leen ba ñoom ñu am seen BRT géej di ci man di ñëw ci jàmm ndax loo xam ne nii ëpp na téeméeri at say maam loolu lañ doon tukkee war nañ koo dépasser léegi ba ñuy toll ci jamono ji boobu di gaal yii ah booba ñoom ay deux chevaux yooyu lañ yor léegi buñ demee ba yor ay marchandise ak yooyu wala ay teer ak yëpp am war na ñoo fexe ba tamit loolu am fii ndox yàlla def ko barkeel ndox mooy autoroute bi nga xam ne nii tabaxoo ko defoo ca fooru defoo ce dara te la mën a yenu oto mënu koo yenu kon boo investir ci eh, locomotive bi investir ci infrastructure bi rek da ngay am compétitivité bu am solo boo xam ne nii luy jaar ci yoon wi nga xam ne nii da nga war a fay euh, mi euh, dix mille francs bu dee ci géej gi sax du mat deux mille francs kon nag ñu ngi koy fàttali gouvernement bi di wax ne ile de Saloum fu yàlla barkeel la ay nit a ngi nekk ci àdduna bi lu mel ne Dubaay dem ba ci géej gi di carrière seen bopp seeni île di ko defar di ci dépense ay milliards et milliards et milliards de dollars nit ñi daw di fi ñëw ñun yàlla baaxee ñu île de Saloum nañ ko toppatoo bu baax a baax a baax njariñ la ci Sénégal yëpp incha allah mm. ndax sénégalais yu bari ñi ngi génn sax di dem fenn te dañoo demul xool il de Saloum nag mais benn gënu koo baax ci adduna bi kon nag monsieur maire maa ngi lay féliciter di wax tamit euh, monsieur Dia Issa Issa Ba léegi nag ni ngeen di def bala ngeen a dem da ngeen def délégation ñu wax ak chambre de commerce ngeen xam li ngeen di def xam nga daje bi suñ dajee nii rek demaat dañ fi toogaat déwét di lépp góor a Traoré yaa ngi may dégg nanga nga fexe bala ñoo dem nga recevoir leen ngeen def programme ñoom li ñu wax ngeen def programme def ko temps def ko lépp ñu xool nan lañ leen mën a jàppale bien que du suñ compétence ndax compétence Fatick la waaye Kaolack moo ëmboon lépp te Fatick xam nañ ne ay possibilité dafa yem danañ ko jaar ànd ko Babacar bopp def ko incha allah ba nga xam ne a wax na le résultat daal maa ngi leen di